Le calife de la communauté chérifée de la Casamance, Cheikh Hatab Shamsdin Haïdara, est décédé vendredi à son domicile à Darou Khairi, la région de Ziguinchor, à l'âge de 96 ans. Le défunt a été enterré le même jour dans son village. Khalif de la famille de Cheikh Mahmoud Haïdara, basé dans le village de Darou Salam, chérif de de Kataba, pour son Lors des concertations sur la vie chère au de la République, le chef de l'État avait annoncé 15 mesures pour lutter contre l'inflation. 18 commissions ont été créées pour discuter des voies moyens pour y arriver. Hier, les réunions sectorielles ont démarré sous la présidence du Premier ministre Amadou et les résultats sont attendus dans trois semaines. Après le drame au quartier Gorong de Kaolack où l'effondrement de la dalle d'une maison a fait quatre morts, le procureur a ouvert une enquête en visant spécialement la chaîne de construction de l'édifice qui s'est affaissé. Le premier suspect été arrêté et placé en garde à vue hier pour nécessiter d'enquête. Il s'agit du propriétaire d'une boulangerie située en bas de l'immeuble. Les enquêteurs veulent vérifier si les installations qui dégagent une forte En Afrique, le calme était revenu samedi matin dans les de la capitale de Burkina Faso, Ouagadougou, au lendemain d'une crise entre l'armée et la jeune au qui a débouché dans la soirée sur un coup d'État et un changement de à la tête du pays, le lieutenant-colonel Henri Sandaogo Damiba, arrivé au en janvier par un putsch, a aidé demi de fonction par des militaires est remplacé à la tête de la jeune par Ibrahima Traoré, un jeune capitaine de 34 ans. La CEDEAO a condamné cette prise de pouvoir par la force, selon le communiqué de l'organisation ouest-africaine. Ce nouveau coup de force est inopportun au moment où des progrès ont été réalisés grâce à la diplomatie et aux efforts de la CEDEAO pour le retour méthodique à l'ordre constitutionnel au plus tard le juillet L'Union africaine, par la voix du président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, a également condamné ce samedi octobre ce qu'elle considère comme un changement inconstitutionnel de gouvernement au Burkina Faso et appelé les militaires à stopper immédiatement et totalement tout acte de violence ou menace contre la population civile, les libertés publiques et les droits humains. Sur l'international, 19 personnes, dont deux colonels des gardiens de la Révolution, ont été tuées vendredi 30 septembre en Iran dans des échanges de tirs dans la province de Sistan, Balouchistan, a rapporté un média d'État au moment où l'Iran est secoué par mouvement de contestation. Toutefois, il n'était pas clair dans l'immédiat si ces violences étaient liées aux manifestations qui ont lieu à travers le pays depuis le de septembre d'une jeune kurde iranienne, Massa Amini, arrêtée par la police des mœurs. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de attention.